تُبْصِرُونَ mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah c 3 moo dellu soit ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko c 3 bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax ñu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 76 46 wala ñu woo Serigne Ahmed Tidiane ca Matam ci 77 424 23 21 ku ci bëgg yeneen i leeral ak foo mënti nekk ci biir réew mi wala bitim réew mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun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 Fatimat bintu Mubarak yàlla dogal mu jël toogu bu njëkk ba ñëw fii nag tey allah fii ci aéroport international bu di ko teertu sëñ ñu bari wax dëgg yàlla ci yoon di fi ñëwagul nii mbokk sëñ bari ñoo fi ay jàngalkat alquran yoo xam ne min ci waaru ñoom ñëpp tey jii ñu boole daara ja ak barab bi ñu nekk ngir leen tertu ganuk alquran gi ñu taxaw ci incha allah benn mbokk boo xam ne ñoo ngi koy wax sëñ Abou jox mu nuyu laaju yu yam rek incha allah ngir lan moo waral seen taxawaay fii asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala sang bi noo ngi leen nuyu di la ziar di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp télévision Rafah TV tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yokk seen barke amiin Cheikh Abou Taha ginnaaw bi ñu leen leen ci liggéey bu rafet bi la sëñ di liggéey ci alquran ji macha allah liggéey boo xam wax dëgg yàlla liggéey mucc ayib la tey lan moo doon seen mbégte ba tax ngeen la ak lan moo waral ngeen ñëw fii. waaw alhamdulilah wolof day wax ku ñu wokk sa picc ku nekk nga dooxlu mm-hmm. Eh, kullu xisbin bi ma la ladayhim farixuun eh, nit ñi kenn ku nekk la nga nekk ca ngay bég mm-hmm. nun nag eh, yàlla danoo boole ci ñi nga xamante ni seen xëy seen ngontu mm-hmm. ci jàng alquran ak jàngale ko liñ ci jot am ñu jéem koo def ci dënni doomi julit ñi loolu nag képp ku ci nekk ak foo ci nekk ci àdduna bi mm-hmm. ñoo bokk luñ nekk maam ñoo bokk mbuus loolu daa tax bi ñu nekkee ci réewum senegal mhm. yàlla dogal ab jongante di am fële ca bitim réew ca Dubaay ni nga ko waxee musabaqati Fatimat bint al Mubarak mhm. eh, senegal Sénégal di ci bokk mhm. ay at boobaak léegi di jëli ndam ba yàlla dogal sunu donga sunu jarbaat bu tudd soxna Ndete Cissé bokk ci woon yàlla dogal it mu jël raw gàddu ga maanaam mboolem réew yi nga xamante ni ñoo fa daje woon bi ñu jongante ba jongante bi jeex ka féete ca kanam soxna Ndate Cissé la soxna Ndate Cissé moom mi nag Sénégal gi la déparé woon te Sénégal gi lay dellu si tey kon Sénégal la dem doon ndam si ndam la ci biir Sénégal nag am ñoo xamante ne ñoo wo ak lim nekkee ñoo féetewoo ak ndam lim am mooy ñi nga xam ne nag dañoo dañuy xëy ci téere bi ci jàng ak di ko jàngale mm-hmm. muy seeni daara yeeg seeni njaay tigeeg donga daara yi looloo tax ndam loolu nga xamante ne soxna Ndate am jàpp naa ni mm-hmm. li muy yëg ci xolam mm-hmm. yéeg tolloog moom ak moromi dongaam yi ci sama ginnaaw li ñu yéeg ñoo tolloo ndax kullu xisbin bimaa ladayhim farihun kon daal mën nañu wax ne xam ne daal moom la am na ci lu mucc ayib ba ñu doon moo ci jiitu ñoo bokk courant bu jumaas mhm. courant bi jumaas mooy waxi borom bi subhanahu wa taala alquranul karim téere bi nag daa xàmmewul melo xam xàmmeewul làkk xàmmeewul gox xàmmeewul âge xàmmeewul dara moom day boole ñëpp ci wa wa inna haadihi ummatukum ummatan wahida looloo tax mbégte mi mm-hmm. sunu président léeg da koy wax léeg-léeg ay mbokki président am dañ koy woow bu lu mel nii xewee mm-hmm. di ko félicité mm-hmm. kon ñoom ak fañ dëkk sax doon duñu ay sénégalais ñu ngi ci yenen réew jiite rew réew bokk nañu ak Sénégal mbégte mi kon yow man donc yi ci ginnaaw ak sunu caméraman yi ak ñeneen mbégte mi ñoo ko bokk te moo tolloo ni ma ko waxee ndax ñu bokk lu ñu maas te mooy téere borom bi subhaanahu wa taala mm. barakallahu fiik jërëjëf sëñ Abou Taha macha allah barakallahu fiikum yal na yàlla fay leen tabarakallah wax ji di ngeen ko waxee ñoo ngi fi wax dëgg yàlla mbokk yeeg ñëpp a ngi fi waajur xale bi seen mbokk yeeg mbokk donga daara yeeg am ni jàmb yeeg soppe alquran ñëpp a ngi fi daal ngir teertoon fii ñu waxee yéen nag ñoo ngi ci waxtu wi nga xam ne daanaka 16 heures tegal na lu mat minutes euh, gan gi wàcc na ci jàmm ak salaam incha allah xaar nes tuuti rek mu daal di génn ci buntu bi incha allah rabbana ñu teerte ko ànd ak yéen sëñ Mourtada ñu toppale ñu xoolaat gan ñi nga xam ne ñoo fi teew incha allah macha ba tey wax dëgg yàlla ni ko sëñ Abou Taha waxee rek kullu xizbin bi ma ladayhim farihun ñoo ngi fii ci aéroport international Blaise Diagne ba tey tamit noonu la fi soppe alxuraan yi soppe alxuraan wax dëgg yàlla ñoo ngi ci taxaw ak kenn ko ñu wax Mansour Ndiaye Ndar nekk ci kuréel goo xam ne ñoo ko al ihsaan di jàmbar joo xam ne wax dëgg yàlla mën nañoo wax ne ci ñuy liggéeyal téere bi la bokk moom ti mu ñëw fii comme ni nga xam ne lu fi sëñ daal di tawee dañ koy laaj incha allah la war a teew fii incha allah ginnaaw bañ ko joxee mu nuyoo ba noppi asalaamaaleykum wa rahmatullah si Mansour Ndiaye waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu maa ngi nuyu euh, ñiy topp Rafah TV ñëpp mm-hmm. rawatina yéen ñi nga xam ne yéen yor chaîne bi ko doxal Euh, ñu rafetlu bu baax seen liggéey ak yitte ji ngeen def ci diine ndax muy chaîne boo xam ne spécial diine la mhm. euh, léppam ci diine la ko teg mhm. euh, loolu nag ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen ci encouragé ndax di ñaan suñu borom baril seen i kem suñu ñëw fii nag wax dëgg yàlla du len lu dul li fi indi mbokk jullit yëpp mhm. mooy am mbégte ci ndam li nga xamee suñu borom defal nañu ko muy ñun ñi nga xamee ne ñooy yëngu ci alquranul karim moo xam ab jàngalekat la moo la moo xam Euh, képp koo xam yaa ngi yëngu ci alxuraan rek moo xam moom même bu dee da ngay dimbale sax ab sëriñ daara ci ahlul quran nga bokk mm-hmm. ci ahlul quran huma ahlullahi wa xaasatu euh, léegi loolu nag mooy suñu teewaay fii euh, muy ndam loo xam ne ñun ñoo ko moom mm-hmm. Euh, bu fekkee ne bi si fa xaasa la ñu ñoo ko ma waaye bi si fa ama ndamul Sénégal la ndamul Afrique la waaye ndamul jullit ñëpp la euh, mbégte mi ñu ci am nag mooy mbégte mi ci ñëpp am ndax li nga wax léegi kullu xisbin bima ladayhim farihun kuréel gu ne am na loo xam ne moo leen di bégloo am na ñoo xam ne ay moo leen di bégloo am am ñoo xam ne euh, biñu masee teg tànk fii ay caaxaan moo leen fi moo leen fi tegloon seen tànk ñun nag kon su fekkee ne kenn ci ahlul quran kenn ci nitu diine am na ndam loo xam ne international la àdduna bépp doon ko doon ko xëccoo lu mat cinquante pays di xëccoo ki dàq jàng alxuraan wala ki gën a mokkal alxuraan suñ borom ne ci Sénégal lay génne muy jigéen di xale bu ndaw teg ci mu boole ñaar di xale ba pare di jigéen teg ci muy muy muy kemtaan koo xam ne tey dem ba Afrique waxuma la sax Sénégal mais Afrique di xëccoog naar yi alxuraan jël ko indi ko ci seen réew loolu ndam mu gën a koo kawe ndax ci naar yi fa la alxuraan wàcc baat bu fa la fekkoon baax mhm. mais léegi kon bu ñu demee ba Afrique wala Sénégal jël ndam lu am ndam lu toll noonu mhm. loolu dañuy wax ne jaaraama sëriñ daara yi nga xamee ne euh, ñooy def seen yitte mhm. ci xale yi wax dëgg yàlla kenn mënu leen fay sëñ daara kenn mënu ko fay waxuma la ay salaire yi ñuy wax salaire sëñ daara di ko euh, xeeb du sax seen sax seen objectif bu fekkoon xaalis doogu moo leen ci bàyyi heure bi jóg nañ ci bu yàgg ndax toog ci xale yi yeewu fajar njël 6 heures du matin wala 5 heures du matin di jàngale di jàngale ba 23 heures bala minuit loolu bu yàlla taxut rek doo ci yàgg kon ñi ngi jaajëfal sëñ yi bu baax di leen di wax euh, mbooleem koo xam ne sopp alxuraan nga rawatina ñi nga xamee ñooy njiiti réew yi ñi xamee ne ñoo ñoo ŋànk njàng mi ñu gën a taxaw euh, sëñ daara xam ne budget bi ñu am jàng taxu ko jóg mm-hmm. ñu koy def ci école yeeg yeneen yi mhm. nañ xam ne suñ daara yi ci lañ bokk te xam ne ndam yi am yëpp ñoom ñu leen koy indil façon jongante bu ne def nañ ko ci àdduna mhm. euh, ndam yi ñu am ay ndam yu suufe ñu doon ay deuxième troisième waaye jël première dañoo dem ba miin ko sax ba léegi bu amatee sax du nekk du nekk loo xam ne day yéem day yéem ko ba miin waaw loolu daal ñu ci encourage ñëpp di di ñaanal suñu borom euh, euh, xamee ne moo ndam li ndam ne moo ñu yàgg am ndam yu mel nii yàgg fee teew di teeru ahlul quran waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mansour Ndiaye Ndar muy jàmbar allah di jàngalekat alquranul karim boo xam ne di nekk ci waar wi di jàngalekat alquran manas na ko wax waaye nag di commerçant macha allah gis nga mbokk yaa ngi tàmbalee ñëw wax wax dëgg yàlla ñoo ngi gis mbokk yu bëree bëri ma allah aleykum salaam wa wa barakaatuhu macha allah Cheikh Omar Fouti yu macha allah ni ngeen di macha allah déedéet abadan tabarakallah alxayr <laughs> macha allah naka waa Mbour bàyyi ñoo jàmm rek allah comme ni nga ko waxee si Mourtala gis yaa ngi Omar Fouti Cissé mi ngi jógee ba Ndar moom tamit macha allah ñëw dajante ak si ni ñu ko waxee wax dëgg yàlla fii ñëpp fi teew te ñëpp a ngi ñëw te ñu nekk ci yoon yi ñoo ngi ñëw ban yëg yee ngeen am si maam Sëñ Omar Fouti ak la moo waral ñëw gi jóge ba Mbour macha allah Cheikh xanaa yëg-yëg bi moom mhm. ndax lii ndax lii mhm. te tuuti wut mhm. jongante boo xam ne moo gën ci xeetu jongante yi muy jongante ci wàllum alquranul waaye ci wàllum yaatuwaay moo gën a yaatu ndax aduna gépp ku séqoon ndonga bu jóge fii ci sunuy daara mhm. daal di teew ak aduna gépp di ko mhm. xëccoo mhm. mu ne Sénégal ñoo dàq jàng alquranul karim ci aduna bi hada kabir wa baadu fal insanu laysa yashrufu illa bi ma wa yaarifu ci lii rek la ñu mën a teddee ci lii la ñu mën a ci lii la ñu mën a yëkkatee sunu loxo kon alquranul karim allahu akbar ca kaw baraka rahmaanu fikum ngeen ñëw ni moom noo leen def ba ñëw da ngeen ñëw seen moyen bopp dagg seen yitte wala. waaw macha allahu taala man sama oto laa andi. Mhm. waaye waa ahbaab gàcce ngaala ma. ñoom wax dëgg fi yàlla. Mhm. maye nañ biis mbuur. Mhm. biis baa ngi ñëw incha ci yoon wi. loolu wax dëgg fi yàlla nekk jéego yu yoo xamante ne ahbaabul quran ñoom def nañ ko. di ñaan yàlla buur bi subhaanahu wa taala mu gën a yokk man-man. Eh, ahbaab di gën a yaatu. ba képp kuy sëriñ daara ci biir réew. képp kuy soppeel alquranul karim. mooy soppi mu ngi mooy boolob sëriñ daara nga xam ne ñoom ñooy njëkk defal seen bopp mm-hmm. xaaruñu ko ci kenn ñooy njëkk defal seen bopp di jéem ca lanu am ca lanu man ku ñëw daal di leen cay fekk masha allahu taala baraka rahman amin wayakum masha allah masha allah baraka rabbuna yubarikikum jarak amin wayakum allah tabaraka rahman masha allah comme wax rek hmm? waaw bismillah sëñ bi na ngeen def ba jàmm rek masha allah alhamdulillah naka coono yi tur bi naka la sëñ Dame Sylla daam si la sëñ daam si la sëñ daam si la foo bàyyi ah, géejawaay. géejawaay géejawaay moo war a nekk sa taxawaay ba tax nga jógee géejawaay ñëw fii. xanaa am ci yëgeeg bu kawe kawe. macha allah boo xam ne euh, fees na sama xol lool. Mhm. ndax li dafa doon loo xam ne dafa rëy lool lool lool ci euh, askanu Sénégal. mel na ne lu ndaw nii ci gisin mhm. waaye lu réel ci yàlla ndax boo xoolee soxna si mhm. ndaw la te ñim doon joganteel ñu si bëree bëri dañoo dañoo namp namp langu arab te ku ne xam ne inna inna anzalna alquran arabiyan alquran ci langue arab la wàcc waaye suñu borom taw fiixal ko mu dem ci góorgóorlu seen daara bi ko doon jàngal ak góorgóorlu moom mu dem nekk ci kaw ci kaw bab bi nga xam ne ñi namp langue sax dogal na yàlla dogal na moo leen féete kaw ci wàllu njàngu alxuraan njàng macha allah muy doon lu yéeme yéeme dafa doon loo xam ne ku am bëti xol di xalaat te yàlla ñor la lii dafa war doon lu kawe sa ñor dafa war a doon lu rëy ci yow te waroo ko waroo ko tuutal heure bi war naa fekk mboolem Sénégal yëpp daje fi waaye nag alhamdulilah waroon bépp mhm. bu nekk ci réew mi mhm. te diine ñor la mhm. heure bi war naa la fekk fekk fii waaw wallahi heure bi war naa la fekk fii wallahi wallahi waaye nag lii day euh, wane rek da mhm. suñu borom waxoon inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun waaw kon daal ñoo ngi ndokkeel mhm. askan Sénégal yëpp rawatina waa Touba ndax la suñ bi waxoon rek mhm. man la ka nil xuraan tam lii kan yadum day fe day def ay jeexit mm-hmm. ci eh, ndam yi nit ñi di am ci alxuraan mm-hmm. ci jamono ji waaw moo tax sant nañ ci baax daal sant nañ ci bu baax macha allah comme ni ñu ko waxee rek ba tey ñoo ngi ci aéroport bi rek bëgg ñu dara ump leen bëgg nañ lépp loo xam ne mi ngi fi bàyyi ko rek bëgg nañ yéen ñi nga xam ne yéen safoo Rafah TV yi ak foo leen mënti bëgg nañ ngeen jot ci moo tax tey ñoom ñoo ngi taxaw ak si Wañaan di kenn koo xam ne wax dëgg yàlla wóorale la ci suñu Cheikhouna Cissé di mbokkum daaraam gis nga ko mu ñëw fi wax dëgg yàlla nit koo xam ne da ko fas yéene tertu te incha allah lu bëri ci programme bu soobee yàlla moo ko suñu Cheikh na ñoo ko fas yéene ànd ànd ak ñenn ci xale yi daara ji nga xam ne ñoo soxna Ndati Cissé ñoo bokk daara mooy daarul maarif islami mooy xale yu nekk ci nginaaw suñu Cheikh na suñ Abdou Lahad Wañaa moo taxaw ni incha allah suñu kanam ñu fas yéene koo laaj incha allah moo ko waajuróom bi nga xam ne mooy waajuru xale bi nga xam ne moo demoon fële ca Dubaay ñu koy wax soxna Ndati Cissé si Abdou Lahad doon say tànk fii ak ban yitte moo ban mbégte ngeen am ci taxawaay bi fii asalaamaaleykum wa rahmatulah Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi salallaahu alayhi wa sallam ñoo ngi am mbégte am kontaante ci fii ñu ñëw tey ak li ñu fi andi. mu yàlla dogal ñu am donga boo xam ne nii dafa nekkoon ci dëkk bi doon jàng alquran. ban dëkk bi mooy Touba. nekk moom la jóge fa fa la jànge alquran fa la juddoo fa la yaroo. Mm-hmm. doon fa jàng ba yàlla dogal mu ñu génne woon ko mu dem Dubaay. Mm-hmm. doon concours ak cinquante cinq réew yoo xam ne ni mondial la monde bi ñëpp amoon accès ci bokk ci ku ku bokkut mhm. yow yaa mënta dem rek waaye bu la neexoon bokk ci mu dem yàlla dogal mu jël fa première di jàng it riwaaya boo xam ne mooy riwaaya warsh nga xam ni riwaaya bu riis la mhm. boo xam ne nii nit ñu bari sax daw nan ko mhm. ngir jafe gum jafe ci ay at atteem ay muduudam yoo xam ne daf koy xëcc yu bari ay xeetu Eh, taqlilam mhm. ay xeelu tashilam ñu bëree bëri ñu daw ko mu ñëw ànd ak mbooloo mhm. jàng riwaaya boobu dugg première place moo tax ñu ñëw fii ànd ak suñu xarit suñu wëllëre Serigne Cheikhouna Cissé nga xam ne ñëpp xam nan nu moo tax ñu ñëw fii bëgg koo teertu nongali moom agsi na wala agsi gut agsi na jamono ji agsi na léegi waaw jot jot naa léegi sëriñam mhm. mu ne ma agsi nan ba wàcc agsi nan ba wàcc waaw xam ne moo ñu wax riwaay warsh yoo xam ne nga ko tudd ndax yéen bi gone gi jàng ñàkk gi nga xam ne sénégalais yi kenn déggul ñu fëgg wala dara ndax yéen réwaay bi yeneen ci doon déglu ay yàq ci biir moom bi doon jàng wala déet hakasa alxuraan dafa sew alxuraan dafa yaatu euh, li mu jàng li muy rey rëy rëy ñun ñi nga xam ne nii xam nañ ci tuuti doon nañ ci bàyyi xel ay mbir yoo xam ne doon nañ ko yëg ci biir njàng mi yoo xam ne ñu ngi koy yëg di ko bàyyi xel naan ah yi mbaa duñ ko ko toppee ndoom te ndoom te kiiwuñu ko noo mënees na ko koo toppee waaye mënees na ko ko bañ a toppe léeg-léeg yu ci bari yoo xam ne nii waaye nag bëriwut bëri waaye am na ay sew-sewaan yu tuuti mhm. yoo xam ne kii na loolu nag day firnde ne alxuraan du mat mhm. kon day wane ne ndate ba léegi mi ngi nekk yoonu toolu ci doog a jàng ndax ba léegi rek dese na lu baree bari te bëgg nan mu yokk ci xam-xam bu baree bari bëgg nan mu yokk ci yarub diine ba ëllëgati si biir mhm. li suñu yéene mu continuer di ko defal ay moroomam. ngir macha allah waaw macha allah. waaw li nga wax nag boo ko waxee du jaaxal sénégalais nga ne soxna Ndate njàng mi mucc ayib ñëpp dégg ko ñu laaj ko lu mat juróomi laaj. Mhm. taxawut fenn yow nga bëgg a wax ne am na ay sew sew yoo xam ne déggoon ci ñaar sew sew yooyu moom comme noo ko a misaalee sew sew yooyu ci biir njàng. <laughs> sew sew bi bari na léeg mën nañ cee tudd lu mel ni alwaqfu wal ibtidaa li ci ëpp solo mooy fi mu a daaneele buy daaneel mhm. léeg mu daaneele foo xam ne nii baax na baax na mhm. waaye daa am lu a baax xëy na moo tax mën naa am topp ñu ko ko mhm. waaw dafa am daaneel boo xam ne baax na mhm. waaye bu demoon ba nangam lay gën a baax waaw waaw daanaka yu mel noonu lañu ci ëpp a seetlu mhm. waaye du maxaarijul xuruuf wala sifaatul xuruuf yëpp dañ koy jël ay bu bér a li ci gën a yéeme moom du arab te xam-xamam eggul ci ah, jàng li ñuy wax naxwu wala grammaire ba pare yooyu mu maîtriser ko lool ba nga xam ne benn nga ci mën a gis wala ñaar macha allah kon sëriñ daara bi njàngaaru xele bi macha allah ñaar yëpp jërëjëf mhm. sëñ Abdoul Ahad Wañaan macha allah dégg nga ni mu waxee wax dëgg yàlla wax ji li wax lu bari feeñ ci mooy njàmbaaruk sëriñ daara bi njàmbaaruk xale bi mhm. sëñ daara bi jàmbaar nangu naa sonn nangu naa jàngale waaye xale bi tamit am na dégg mhm. te wax dëgg yàlla nangu naa jëfe lañ koy defaloo macha allah ci foofu rek la ñuy toxee macha allah waaw waaw sëñ Seexuna nag ko xam xam ko ci alquran xam ko ci jàmbaare xam ko ci ràññeeku Ah, ndaxte njëkkute dem ci concours bi ci ah, ci jamonoy màggal gi rek demoon na ci concours jaayu sa Cheikhul Khadim jëloon fa deuxième place exe kooku ak baneen xele loolu demoon na ci sëni ko jël fa troisième place ah, waaw waaw kon kon ndaxte yàgg naa ràññeeku waaye sëñ Cheikhouna it yàgg naa ràññeeku ci alquran macha allah moom ku jàmbaar la ku jàmbaar la Cheikh naa jàmbaar la comme ni nga ko waxee wax dëgg amal ci màggal gi yaakaar bu ma juumut bokkoon nañ ci ñi nga xam ne allah kon loolu yëpp wax dëgg ak njàmbaram ñoo ngi taxaw ak waajur xam ne mooy waajuram bu jigéen incha dañ koy laaj incha moom soxna si soxna si ni def salaamaaleykum wa rahmatullah soxna Boussa Dieng. soxna Sooraga Dieng. soxna Sooraga Dieng. soxna Sooraga Dieng lan moo doon sa yëg-yëg bi nga yëgee ne sa doom dem na fële. xam naa kontaante ak xol bu sedd rek. waaw xam na alxuraanul karim moom. Mhm. ah tànk kanam waaye amul yooyu ginnaaw. waaw sant bu baax a baax kër sama xol sedd na guy. Mhm. ndax loolu la papaam bëggoon. Mhm. te ko ci alxuraan mi jàng ba ni mu dëddoo sun ni mu dëddoo man mi yaay mi tam yàquma ci dara. bàyyi ko sañ seexu naa rek. ndax Seexuna moom it ku ko xam ci alxuraan nga ko xam mhm. ci sunu kanam la jànge mhm. ci sunu kanam la xame lim xam ci lu baax lan ko xam waaw di sant rek di ko gërëm na mu sëñ sa doom dem na fële ba yëg ne ba nga yëg ne gañe na te moo jël première bi ban yëg-yëg nga ak naka nga ko dundeewul bett na la wala bettu la waaw bett na ma bettu ma de ndax sëñ seexu saa sëñ seexu naa mhm. ah njëkkul ci bi concours tey mhm. waaw ndax dem na demati demati mhm. soxna Ndata it njëkkul ci bi tey yóbbu na ko yóbbooti ko yóbbooti ko kon bett na ma bettu ma daal waaw xol bu sedd daal laa ci àndal waaw en tant yow mi nga xam ne yaay yaay lan ngay soññu yenn jigéen yi nga xam ne dañuy wax naa njàngum jigéen amul solo di wax dëgg yàlla yaakaar naa yow war nga war a mën a wedd baat boobu ndax yaakaar naa soxna Ndaté bii du benn yoon du première fois mu def ko yaakaar naa jël na ay ndami ndam yoo xam ne ci alxuraanu karim la ko jël yow njàng mi da nga ci doon jàpp ak yow ba xam yow da nga ak lan ngay soññ leen jigéen ñi man sama doom soññ rek mu jàng muy jàngi rek mhm. féete ca daa daaja di jàng mhm. Ndaté mi mhm. daawul ñëw ca kër ga guddi daawul ca ñëw ba bëccëg ci daara ji lay yendu fi lay fanaan jàng laa ko def loo woon ndax sama doom jàng rek laa bëgg ci moom waaw nga xam muñ lépp daal. noonu na maa muñ léppam dama doon baleeg naan xale bi léeg-léeg mu neex jàng yooyu yëpp de musuma def loolu déedéet wallahi asim kon lan ngay soññ waajur yi nga xam ne ñoo ngi lay seetaan ay jigéen xanaa ma di leen mhm. leen ñaax ñu góorgóorlu ci seeni xale mhm. pour jàngaleel alquranul karim teg leen ci yoonu lislaam mhm. ci yoonu baax man da jigéen bi ma dégg loolu laa lay soññ nga góorgóorlu ci sa doom jërëjëf waaw jërëjëf soxna Soda yar ko waaw macha allah jërëjëf soxna Soda kon nag lii mooy li nga xam ne kàddu yi mooy ñëwgun fii ci Rafah ñu ngi xaar ba euh, suñ candidat bi génn incha allah ak ñeneen ñu war a àndal bu soobee yàlla incha allah. والقلم وما mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu saat ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk da ngay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko c bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wi tax ñu